yu faatu la daal di reconnaître jamono ci toll nag Ousmane Sonko àdduna ci mbir mi xam la ni voilà euh, France na changé ay na euh, xoolaat euh, li nga xamante ni mooy ay méthodam waaye tamit lu jëm ci mbir moomu le maanaam anam bi nga xamante ni moom la ñuy fàttalikoo Caaroy 44 dinañ ko gën a yeesal ban gis-gis nga am ci li nga xamante ni Ousmane Sonko yëkkati na ko jëmale ko ci wàllu woowu. waaw jërëjëf soxna Diarra di nuyu gars yi ñuy seetaan ñoom ñëpp rek nuyu naa leen defe naa maa leen doon teewlu ci yoon bi. Mm-hmm. Euh, li ngeen ci wax yëpp am na solo macha allah euh, mu di bataaxal bi nga xam ne euh, le président de PASTEF partagé na ko démb mu jëm ci affaire Thiaroye 44 mu nekk loo xamante ne nag xam nga réew mi fi mu toll nii dafay waajal célébrer les quatre-vingts ans. Mm-hmm. maanaam quatre-vingtième anniversaire bu Thiaroye 44. Mm-hmm. moo tax nag xam naa ne réewum France moom soobu ci tànk yi. Euh, reconnaître progressivement loolu nga xamante ne histoire bu douloureuse la digganteem ak Sénégal booy fàttaliku François Hollande moo njëkkoon a naturaliser ay tirailleurs sénégalais ñoo xam ne bu mu yor nguur ga France defoon na ko alors ñuy dem di dem di dem ba Emmanuel Macron ñëw mu daal di tànn juróom-benn ci ñoom reconnaître leen hmm, takkal leen titre mort pour la France. loolu nag africain yépp aussi di ko naqarlu moo tax bu ma gisee ñu koy rafetlu damay jàpp ni xëy na ñii dañoo comprendre histoire bi nu mu demee mm. wala mbir yi da leen a da leen a raw euh, France damaa jàpp ne euh, li ko warloon digganteem ak tous les pays africains yi nga xam ne ay nit jóge woon nañ fa pour dem wallu ji ko li ko war ba tey jii defagu ko xam nga dañuy wax tirailleurs sénégalais yi sugu junj na ko léegi c'est ñoom ñëpp tirailleur sénégalais lañ leen di wooye même yenn ñiy jóge ci yeneen pays yi sax tirailleur sénégalais ngay dégg. Mhm. pourquoi parce que d'abord Sénégal moo njëkk yóbbu ay soldats moom boo pare ñoo fa ëppoon moo tax tirailleur sénégalais tirailleur sénégalais ngay dégg mais booy xool AOF Afrique occidentale française tous les pays ci bokk Mauritanie Sénégal euh, Soudan français moo tuddoon mooy Mali bi actuel Mali Haute-Volta ak yooyu réew yi bokkoon AOF yépp yónn yóbboon nañ ay soldats. AEF Afrique équatoriale française aussi yóbbuwoon nañ ay soldats donc mu mel ne ay million wu africains ñoo demoon wallo ji réewum France waaw ba ñu leen walloo ba pare nag est-ce xam nga ne France la ma leen waroon a jox un quart bi la leen jox maanaam bu ma la waroon fay xaaj ko ñeenti yoon jox la benn bi. Mm-hmm. novembre affaire bi jeex ñu commencé leen a démobiliser mooy ne démobilisation bi. dañ mm-hmm. leen remobiliser yóbbu leen bu ñu paree ñu démobiliser leen indi leen. mais bi ñu leen indee quand Thiaroye lañ def transit. maanaam ñoom camp bi dañ leen fa dajale woon nii rek après pour kenn ku ci nekk dellu fa nga def fa nga jógee mais dañoo dem ba ci biir gis ne ñii non seulement tànkuñ ci nekkuñu ci tànku fay leen lañ leen amet waaye dañ doon tendeefal gars yi nag commencé kaas le premier décembre nag ca la affaire ba éclaté nag waaw ñu massacré ci ñu baree bare baree baree bari xam nga maa ngi dégg euh, soxna amee di ko wax. le chiffre 35 ñoom 35 la ñu rek la ñu annoncé officiellement. Mhm. officiellement cinq la ñu wax mais ëpp na 35 di dem. di dem des centaines. parce que ña fa nekkoon ëpp nañ 1500 cinq nañ 1500 ñi nekkoon ci camp Thiaroye bi donc 35 lañ ci annoncé donte ñun xam nañ ne ëpp na loolu mais yemuñu ci massacre bi am na ñoo xam ne leen jàppoon am na ñoo xam ne prisonnier lañ leen def am na ci ñoo xam ne 10 ans de prison lañ leen lañ leen lañ lañ leen daanoon. dañ leen mujj amnistie moo tax amnistie yàgg na ci réew mi ñoom ñëpp et ñu ci bari aussi jaar ci problème boobu donte ñoom bokk ñoon ci ci raari ku mel ne ay Bouna Alboury Ndiaye Léopold Sédar Senghor Blaise Diagne ñoom ñëpp jaar ci parce que ñun ñëpp c'était des combattants Léopold Sédar Senghor demoon na xeexi mais moom li ko sauvé mooy dafa dem ñu jàpp ko def ko prisonnier tëj ko fa deux ans biñ ko libéré moom dafa dem dellu di jàngale. dellu ci enseignement bi ba ni muy nekkee député pour démarrer maintenant sa carrière politique ba ni muy nekkee président de la République du Sénégal. Mm-hmm. Blaise Diagne yaa ngi koy wax léegi. Mm-hmm. mooy ñuy tuddee suñu mbedd yi. mais Blaise Diagne Clémenceau moo ko def au commissariat chargé du recrutement des tirailleurs <laughs> parce que dañoo dem ba ci biir révolte bi am AOF parce que dañ leen doon enrôler par force neex naqari da ngay dem moo amoon. mais bi ñu demee nag ba révolte bi am Clémenceau changé doxalin bi jël Blaise Diagne un nekk le premier député. noir noir def ko commissariat chargé du recrutement Blaise Diagne xam lu mu indi ëpp na soixante dix mille personnes yu mu indi. Clément Clémenceau bi ñu tuddee aw xàll foofu ci Ndakaaru boobu. mais indi eh, évidemment ku muy yóbbu keneen. mais boobu au moins c'était c'était c'était volontaire maanaam yow yaay ne da ñëw ne da bëgg a dem dem. ku mel ne bu Albouri Ndiaye par exemple ci la demee woon moom moo def volontaire dem xeexi ne damay dem moo tax France def ko légion légion mhm. légion euh, d'honneur moom lañ ko mujjoon def kon ñi ci faatule xëy na la ñi di waxtaane mais am na ci ñeneen ñoo xamante ne jëlee nañ ci ay coono ñii dugg ci kaso ñii ñii ñu gaañu ci te loolu ba tey jii mujjul fenn am na ci ñoo xamante ne tey ñi nga xam ne seen i waajur dañ fa décédé fii ci camp bi mais kenn mënula wax fii lañ leen suul même les six là yu ñuy reconnaître mais fan lañ leen suul <laughs> et si si je je rappelle que quatre sénégalais képp la. Mm-hmm. benn ivoirien ak benn ak benn ak benn burkinabé. comment est-ce qu'on peut reconnaître six personnes sur sur plus de mille cinq cent personnes yu doon ñaxtu nga ne yow rey nga ci trente cinq et tout le monde sait que ëpp na trente cinq parce que yooyu woon ay ngàndaay yow nga français yor ay mitrailleuses mais dañ leen a mitrailler. moo tax l'histoire du camp de Thiaroye l'affaire là vraiment suñu historiens yi moo tax su ko wax na dëgg dañ ko war a dañ ko war a examiner bu baax a baax a baax gëstu ko ba xam réellement la ci nekk et que France aussi reconnaître ce tort là cette terreur bi nga xamante ne causé na ko ces Africains la et ba tey gëm naa ne man la préjudice kenn kenn kenn taxawu taxawul ci tànku reconnaître ko de façon officielle ba pare def ci li ci war a def vis-à-vis des familles ci ñoo xamante ne seen njaboot ba léegi ñu ngi fi. mais mu jul fen donc bu ñu demee ba xam ne réewum Sénégal fi mu toll nii taxaw na ci tànku célébrer loolu fàttali ko ko soppi ko nag parce que loolu la Ousmane ko wax. Mhm. dañu ko doon defee nag désormais moom. dafay changer. Mhm. moo tax ñoom ñuy profité ne xaaral yee yaay dañu reconnaître sax ñenn ñi pour jéem a calmer le jeu. c'est un langage diplomatique message diplomatique mais dama jàpp ni c'est trop tard parce que ba ko France waree def dafay yàgg. dama ne la gars yi ba tey jii may wax ak yow seen trois quarts boobu des am na ñoo xam ne ba tey jii jotuñu ko ñii faatu nañ ñii gaañu nañ ñii dugg nañ kaso ba tey jii mu jut fenn ba tey mujjul fenn et li ma ci gën a metti su wax na ko léegi ku mel ne Clémenceau moom boo demee dañ ko tudde mbedd fii Ndakaaru Faidherbe bi ak lim def fii yëpp dañ ko tudde ab pont maanaam nit ñi ñu doon toroxal démb ñoom lañ jël tey soppali leen bëgg leen def ay héros alors que c'était des assassins je pèse bien mes mots Faidherbe était un assassin loolu man maa ko wax man soo Ndiaye parce que li mu def ci réew mi yëpp taal fi ay kër rey fi ay nit kooku kenn xalaatul ñu koy tuddee ay pont ay lu ma la munti wax donc Sonko ba mu ko ta ba mu ko tàmbalee def Ziguinchor pour soppi rue yi mais gis ngeen toole bi mu jël. Mhm. état bi njëkk jóg ne loolu lii du fi amee kërëb kërëb mais ñooñu nekkuñu nekkuñu ay référence ci ko xam histoire africaine. parce que mhm. lu ay ñaawteef rek lañu fi nekkee woon. kese kon. dama jàpp ne prise de conscience africaine boobu dafa jot non seulement peuple yi am ko mais dafa jot aussi les élites ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite ñu am ko parce que ñoom ñooy décider tey l'affaire là dañ ko war a dañ on doit raconter réellement aux Africains ce qui s'est passé au camp Thiaroye yi ñu xam ñaata ñoo ci dee de façon officielle ñoo xam ne ñii la fan lañu leen suul dañ ko war a xam parce que mbokk ñu dee mais bëgg nañu def dëy mm-hmm. mais kenn xamul kenn mënu laa fii lañ camp Thiaroye rek ngay dégg camp Thiaroye rek ngay dégg donc loolu je pense que jaara daal euh, jot na euh, heureusement suñu suñu autorités yi comprendre nañu ko bu bëgg a changer complètement la donne euh, léegi nag réewum France li mu ci war a reconnaître aussi na ko reconnaître li mu ci war a dédommager aussi famille yi fi des nañ ko dédommager et que vraiment nag ñu xool lee relation de façon globale naka la ñu koy équilibrer ba nga xamante ne la fi doon am dootu fi amati. je pense plus important